fin que koy tàmbalee dañuy dem fële ca 34e édition Coupe d'Afrique des Nations édition 2023 fofo ca Côte d'Ivoire ginnaw bi nga xamanteni ki nga xamanteni moy les lions de la Teranga di Aliou Cissé et sa bande ñom Sadio Mané ginnaaw bi nga xamanteni def nañu carton plein trois matchs trois victoires dal di neuf points ci première tour bi ñu dem ci huitième de finale dajé ki nga xamanteni moy meilleur troisième du Côte d'Ivoire ba kon ci ginnaaw ci huitième de finale yi ni fi nga xamanteni moy chemin Aliou Cissé ak ñi nga xamanteni moy les lions de la Teranga fofu la dal di yam ginnaw bi nga xamanteni ñak nañu sen match huitième de finale c'est diggante ak ki nga xamante moy équipe du Côte d'Ivoire bi nga xamante mo dalal li nga moy 34e e édition Coupe d'Afrique des Nations ginnaw bi nga xamanteni def nañu match nul 1-1 bañu démé ci prolongation ñaari 15 minutes ginnaw ci tiro au but nak ci cinq tirs Côte d'Ivoire daal di dugal juróomi biom yépp ki di Sénégal daal di dugal ñeent daal di rate Ben. Moussa Niakhaté mo raté li nga xamanteni moy penalty Sénégal lolu motax li nga xamanteni moy équipe nationale du Sénégal bu Aliou Cissé ak ñom Sadio Mané ñi di pélen clap et fin pour li nga xamanteni ni sen seen jongante bi doon am fofu ci Coupe d'Afrique yaakaaroon ni que dañu Amat deuxième étoile jël Coupe d'Afrique bi comme nañ ko défé won fofu ci Cameroun en 2022 ci Égypte bi yoon nag nañu jàpp ni que dal ñom li ñu daanee won Égypte ci tiro bi ba indi fi ndam li nonu la yalla jëlé aussi ndam li dal di koy jox Côte d'Ivoire xañ ko ki nga xamante moy équipe nationale du Sénégal jaarle ko ci tiro bi ginnaw bi nga xamante équipe la nak bo xamante Côte d'Ivoire ginnaw bi nga xamante mo dominer match bi yépp ci huitième de finale yi foofu ca Yamoussoukro li am solo ba am solo daal mooy suñu sukkandikoo ci juróomi tiir yi nga xamante ni war nañ ko amal ci penalty yi équipe bu nekk nañ jàpp ni que daal Côte d'Ivoire dugal na ñeent eh, juróom kii di Sénégal dugal maanaam ñeenti buyam mu doonoon nag benn chute boo xamante ni ñii di champion d'Afrique yi ñoom ñi ngi doon rêvé am beneen deuxième titre d'affilée mu doonoon nag benn cruel déception jaarle ko ci ay millions de Sénégalais ginnaaw bi nga xamante ni compté nañu bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy équipe bi ginnaaw bu mu regorger ay star yu bëri en tout cas c'est la loi du sport ni le la mënoon demee Côte d'Ivoire qu'un xalaatu ko won ci li nga xamanteni ni moy 8 huitième de finale ci dernière minute lañ ko repêché mu dal di ñëw dans li nga xamanteni moy champion à titre ki nga xamanteni moy équipe nationale du Sénégal ginnaw bi nga xamanteni ni de ci gagner dafa gagner ñetti matcham muy seul équipe bi nga xamanteni ci premier tour yi gagné na trois matchs dans di totaliser neuf points mais que c'est la loi du football gis nañu ki nga xamanteni moy Cameroun moment mok Sénégal ñom ñoo qualifié woon mais suñu jappé ci poule bobu ñom ñaar ñep dañ leen éliminé qui nga xamanteni moy meilleur meilleur troisième bi di Guinée mon mu daal di qualifié ci quart de finale yi ginnaaw bu mu daanee ki nga xamante ni mooy Guinée équatoriale ci benn bal ci dara ci biir loolu nag am na benn image boo xamante ni ça a fait le tour des réseaux sociaux muy image qui ki nga xamante ni le plus jeune joueur bokk ci équipe nationale muy première sélection fii nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique des Nations di Lamine Camara wanee na daal benn bravoure wanee na daal benn amour par rapport à son pays wanee na daal benn cofeel bi nga xamante ni amoon na yéene pour jël li nga xamante ni mooy titre bi nga xamante ni ginnaaw jël na ñetti titre de championnat lenn moo ko dese woon coupe d'Afrique bi nga xamanteni bokk na ci li mais en tout cas jooy na daal nous mu une image pour xamanteni c'est émouvant donc je crois que àdduna la tey yàlla daf lay may suba mu xañ la na gën gor góorgóorlu am na coupe d'Afrique bu ñuy xaar en 2025, fi ak euh, un an ak quelques mois rek fofu ci Maroc xeyna dina yalla dina dellu siwaat jox ko li nga xamantene moy mooy en tout cas nous leur disons félicitations nous disons félicitations Aliou ndax ndaxte demoon ngeen indil ñu ndam am ñu ñàkkoon bi yoon aussi su ngeen demee ba huitième de finale ngeen daal di ñàkk yàlla moo dogal fofu xeyna li gënoon ci ñom la en tout cas nous leur souhaitons bon courage et bonne continuation ils n'ont pas démérité malgré tout ils ont satisfait tout le peuple sénégalais mais que Sénégal deuk bu naqari la ndaxte soit gagné ya fi man mais beau bo perte nga gis say défaut yëpp donc Aliou Cissé je crois que mine na l'eau donc les plumes tu ci mën jorat nako encaisser ko ni que Sénégal le nek <laughs>